Anita Diop nag benn page Facebook la boo xam ne euh, dafa xarañ loolu ci wàllu information euh, te information yi muy joxe bari na lu muy euh, dégonfler ay fake news wala yu muy joxe information yoo xam ne souvent du arrangé ñi nga xam ne ñoom ñooy parti bii di waa PASTEF démb ba tey nag am na ay Samba Sula Bali yuy génne ne man may animé page boobu Anita Diop avec des dignitaires du régime des policier et des gendarmes ñenn ñi di naan. man tout simplement man may Anita Diop je voudrais le dire de la manière la plus sincère et la plus solennelle je ne suis pas Anita Diop su ma amoon information yi nga xam ne moom la Anita Diop di génne dama koy indi 7TV parce que man 7TV ak AZ Actu mooy sama emblème dama leen koy tegal bu amee ñu muy neex mu neex leen bu amee ñu muy nakari mu nakari leen parce que journaliste là manier l'information c'est mon travail je ne comprends pas pourquoi ma am le droit et la légitimité de manier l'information de donner l'information may dem di nëbbatu derrière une page Facebook pour joxe information boobu Anita Diop su ma doon jël euh, tour sax MNF laay jël ndax MNF label la mais je ne suis pas Amine Anita Diop ñi nga xam ne ñoom ñooy véhiculer ces fake news la euh, pour euh, indi jiixi jaaxa ci xelu askan bi li nga xam ne ñoom ñooy force de l'ordre yi ñu ngi ciy def liggéey pour identifier ces gens la seen objectif nag mooy euh, ñu attaqué euh, béréb bi ndax démb ba tey am na ay information yu ñuy jot naan am na ay xale yu ñu fay ñu ñëw pour attaqué béréb bi euh, mbaa ñu attaque ma personne ñi koy def ña leen koy def loolu nañu comprendre que ne je m'en remets Euh, à la loi lois de ce pays-là clamé naa ko fa ma ko war a clamé mais tamit ñi nga xam ne ñi may waxal mooy les Sénégalais dotés de raison et de bon sens booy mener un combat da ngay mener un combat avec de l'intelligence man munuma nekk journaliste di nëbbatu derrière une page Facebook alors que am naa droit joxe information te information yi Anita di joxe précieuse na précieuse boo xam ne c'est des sources de premièrement su ma ko amoon dama ko naan teg 7TV def li nga xam ne moom mooy la promotion de mais média donc seen combat euh, politique génne leen ci les hommes de médias man sama yoon nekku ci je fais mon travail sama démarche nag mën na neex nit mun na ko bañ a neex mais dans tous les cas je l'assume et man je ne suis pas lâche je ne mène pas des combats à visage couvert je n'avance pas masqué je suis journaliste je fais li may def maa ngi koy def yéen a ngi koy dégg ñii di leen di xëpp ci man nag seen ah, seen seen seen intention nekkul jàppale leen ci seen combat seen intention leneen la yéen ñii nag ñi nga xam ne da ngeen di comporter wu comme une meute comme une horde de haineux et de rancunier ku tëb ngeen foog ne mun ngeen dal ci kawam man intimidation kenn mënuma ko def tous les jours dinaa def sama liggéey dina informer dinaa wax li ma bëgg a wax te lépp nag dinaa ko teg ci li nga xam ne moom mooy samay chartu métier parce que man rus naa ma pare daf liggéey ba pare ñi nga xam ne ñoom ñooy samay ñooñ muy mes pères woo ma ne ma may mun a kat wàcc nga yoon donc intimidation bi bari na menaces yi bari na mais du tax tamit ñu changer suñu démarche du ma yokk dara ci li may def du ma ci wàññi dara te it nit du intimider ba ma wàcc sama yoon wala nga dugal ma ci combat politique sama yoon nekkul ci combat politique ma mission c'est d'informer je fais un métier noble boo xam ne am naa ci légitimité je n'ai pas besoin de me cacher derrière une page Facebook boo leen di véhiculer yenn affaires yi da ngeen ciy ànd un peu avec de l'intelligence moo gën ngeen di def comme des gens yoo xam ne ay robots yu ñuy jël di leen pousse ci kaw yi nit toutes les dispositions sont prises et je vous dis moi je ne serai pas une victime collatérale d'un quelconque combat politique dama bëgg mu dugg ci seen nopp kuy jël responsabilité di a mais nu mu tudd mon siège wala di ma attaqué na nga teel a jóg te na nga préparé wu maintenant l'intimidation là ça ne marchera pas ça fait quatre ans que dans vos page tous les mois ngeen saaga ma euh, waxal ma sosal ma lu dul dëgg lu nekk ngeen wax ko du ma du loo xam ne saa ma ça me perturbe ça ne me perturbe pas voilà je prends ça très bien mais maintenant bu fekkee dañuy dem ba bëgg a mettre en danger ma vie et la vie de mes agents dafay baax ma wax ak sénégalais maintenant cet ordre bi nga xam ne wu ñu soxor nañu euh, seen bopp feesu ils sont incultes et ignorants je ne leur parle pas moi je parle aux Sénégalais yi nga xam ne voilà ils sont raisonnables te it ñu ñu bëgg la ñu ñu fonk la et je le fais par responsabilité parce que sama métier la c'est juste cela et j'en ai fini léegi nag